In, out, out, in, out, in. Je pense que. Out. Je pense que c'est bon. assuré ko ñoom kat yëpp assuré ngeen. assuré ngeen ñoom kat ñëpp. bravo. mais est-ce que am na endurance. macha ah. allah jàmbaar la. très bien. Régis. Ah. alors si c'est bon. so. waaw yaakaar naa nag suñu ndaanay la yoo jël fii. waaw. devant Billy Jeunesse de l'Estie. di àggali. ak suñu bi nga xamante ne bii si kër merci beaucoup El Habib. nee naa leen fii. l' de cet euh, euh, événement laa ko mën tuddee moom am xalaat bi moo am xel bi elle se nomme elle se nomme tout simplement Bijou Ngoné. Bijou Ngoné na ñëw fi nga xam ne moom moo ci digg bi moom moo am initiative bi ñëw dajale li nga <laughs> allo ñëw mais gaynde metti nga de e eh, jaawal nga buuman ni e eh, jaawal nga buuman ni e waa HLM la nag di dégg ay ca ay taw xaritandoo ak Demba Demba kenn du yow. allez mu ngi nii ci ay initiative de l'anniversaire de la jeunesse bi moom moo dajale les influenceuses dajale les célébrités. di

jamono ji bi bu yëngu ci wàllu agriculture mhm. wàllu microfinance ah ak beneen bi culture barkan la ak bi nga xam ne mooy mooy mooy wàllu emploi dañ ko ma ma fal ambassadeur dëgg la ko nag il nga dugg ci finaalu ngóone bi ndax mooy bës te xew ki jamono mu ne ma d'accord anniversaire u woo ko direct mu ñëw Sarpa groupe dana jëf incha allah. jërëjëf Omaro jërëjëf waa Sarpa groupe Sofia wax dëgg yàlla. Bijou daaw def nga ko mu yëngal dëkk bi ren. waaw def ko nañ ko nee naa bëgguma ñuy wax Bijou événement bi du événement Bijou. 2STV anniversaire ru 2STV. pourtant pourtant dama laa bëgg yàlla dafa bëgg rek moo ci jiitalal la muy muy piloté. dafa li ci ëpp yow yaa ngi matinal bi ah, yóbbu dépense bi nga xamante ne à chaque fois Saliba ànd la ren ma ne leen taf leen ci Mbodj Baye. waaw loolu taf leen ci Mbodj Baye yaa ngi yóbbu dépense bi neex. ah takk ndoo jabar ñaari xale ci benn bi mbay dafa takk ñaari jabar ci benn bi te xam nga boo mënee rek mën nga ñaar xale yoo xale influenceur yi jubóo nañ de. temps yi influenceur yi jubóo nañ de. temps yi ñoom ñëpp a jubóo. fii ñoom euh, ñëpp a jubóo. lii daal bëgguma ko. ñëpp a jubóo. wuyu ko wuyu ko te da ngeen ragal bu ñëw nangu wax ko moom Ndiaye waaw dama dimbali ñu dañu bëgg seetaan si waaw baabay bëgg naa la baabay bëgg naa la sali sali kaay ndawal nga am te Sénico dañ ñu gunge ci lépp loo xamante ne produit Sénico la na nga ko fa am. waañ bi ci waañ bi. Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa SAID aussi dinañu gunge ci ci am na Nourou la Jus ah euh, ay Cheikh Kacha ah nga xamante ne ñoom ñu ngi ci. parce que nag Sofia. waaw euh, ñoom. togg bi xam nga chronomètre dégg yëpp ci la comme daaw ñu ko defee woon rek waaw ñu maîtriser parce que tamit dañ teg gagnant waaw xam nga daaw dañ tegoon gagnant gagnant bi am un million loolu dañaa la ren xam nga tàng parfois waaw ah, li ma wax léegi jibi sëy nee naa ko jibi ah, foo dafa xaalis waaw waaw Mbodja <laughs> <laughs> teg groupe bi nga xamante ne moom mooy feeskat bi ak toogkat bi 2 millions laa leen di jox.

Güzel bir döneceğim. İkinci bas bak. Ulan sakın ben. Ulan. Suran ni dogo neex. Suran ni dogo neex nag. Ndax buuse ñëw na Alaaji Mbay ñëw na. Mu ne. Ñu ngi soog a neex nag. mais temps yi jubóo ngeen de. parce que génne woo sarax. ah dooroon naa fi dóor yoo xam ne. yi ma la dóoroon. pour damay xëy rek ñu tàggee la police jël ma. mais di ngeen a jubóo. waaw luñ jubóo wee nii mbay jubóo baaxul si man damay fay. dañoo dëw bi la anniversaire de da nga bëgg programme. da ngay togg ah. waaw plateau bi ñëpp dañuy togg. ah ku nekk ak sa kii. ah maman Vulgaire. ah Oumy Mbacké. Naya Bodé. ñoom ñëpp dañuy togg. waaw. ah loo indi. yaa jël bee wala. ceebu jaan laay def ak jasit. ceebu. ceebu jaan ak jasit ak krokodil. Ah. ceebu jaan ak krokodil ak jasit. Ah, moom laa yëg. léegi asu dafa nekk fii. Ah. waaye dimbali leen ma ci rek mais seen seen dafa gaaw demal gaaw demal demal. demal. ummi. mbay mbay mbay laa wax mbay. dalay door de. yow yow yow dama la dóor daaw ba sama màggal ndax sëñ Touba nag ndax nangu na ko déet demal mais dañoo atte yow Kara doo policier xalil kii du dem bi ma ko ñoddee rek mbay woyof rek ma yéeg ci kaw nekkate éponse kese la demal waay cat dafa gaaw samedi incha allah ngeen ñëw ci anniversaire bi 2STV yi ci talibé bi invité na teel. 22h dafa fekk ñu ñëpp ñu daal di ambiance ndax nee naa leen sama marraine du ay caaxaan. yaa ngi dégg mm-hmm. ah. Euh, donc euh, euh, waaw. nee ko télé bi moom mooy star ku ci taxaw rek xam man yow laay supporté sa togg bi yow laa bëgg yow laa nga gagné. baax a baax a a yow laa bëgg ñoom su ngeen juboo rek yéen su su juboo rek man damay fay. waaw yow bëggoo kenn ci boo yow da nga bëgg ñuy jamante paaka bi seelaat ay xol yow loolu nga bëgg. kenn ku ci nekk yaa ngi man yow laa faral dégg nga comme ça kii boobu ma nar a toog ngay ubbeeku ne tama bàyyil mbay. lay li ma toog da nga gaaw a wax bàyyil mbay. ñu def waxal waaw na yem na wax bi yem waaw. waaw nee ko à suivre jaay ko kalaam. à suivre. Eh. ba yow xanaa xamoo bi sama rakk rek gisoon nañu xas ko. waaw waaw waaw yow kay toj nga fi xale loo xam ne suñu ko daf koy defar di ko am foofu nga de dañ la bëgg fas mbay mais jibi mbay bëri kaa ngi noonu sama xarit nga de da nga bëri kaa yow yaa koy tëgg yaa koy tëgg yaa man nag dama ànd ak fante mu ak maman Africaine sama xarit waaw maman ñoom laa àndal daal bëgg jël ndam maa ngi tane bu baax kay ñoom ñaar ku si jël ndam li rek ah. Ah. mais Mbaye Mbaye maam maam maam moo ngi lay xam sànq de naan la taay da nga fay parce que ñoom ñoo ko ñoom ñoo jubóo man si jubóo damay fay waaw dëgg la dëgg la ñoo jubóo mais tendance bi nag faa mu génn tendance bi faa mu génn parce que yow da nga nekk nit koo xam ne sikki nga nag mën naa la ko wax sikki nga sikki koo xam ne mbay sikki nga sikki koo xam ne mais yàlla rek moo lay suturaal yow nee la ku bëgg ku bëgg képp ku bëgg laax képp ku bëgg nga bëgg mbay dama bëgg ngay ànd ak mbay si si si tànnaas di xuloog mbay mën a yëg loolu ma pare loolu rek laa leen digal mbay daal képp képp képp ku sës si mbay rek del xuloog moom ngeen yéegal mbay dëgg leexu yow sama waay nga amal jàmm bu baax mais lu koy def lu mu naan ak lu koy. ay ca yéen ñu ngi stylé bi maa ngi teel. waaw waaw bi ñu. mbay baa yaa ngi tane mbay baa yaa ngi tane rek. mbay da ngaa fàtte. eh dugaluma ko. kay kay kay kay lu koy kay. naar yi bu mu duggee dama naan mën a ba. lycée bu fekkee yaa ngi seetaan doo ñu dimbali ci Omoro mu bàyyi leen ñu ñu njëkk ñu ñu sonn nañ ay. fukki junni la jokkoo pour lui maman Bourguère jël naa fukki junni la. même chaîne de télévision avec ngeen saa yu ngeen jubóowee rek man damay fay. da ngay fay waaw da ngay tëddee fay ndax na fay te dama bëgg ngeen xuloo. fii moom la woon na. la woon ni na. maam yow yi xuloo bu ñu xeex dañoo weer suñu ngàndaay. bii déedéet wuy ma. Sébata ma jaxase ba Sébata di ma xas chaque jour may laay. waaw léegi dootu ko defati naa ñëw dégg nga waxtaan ak yow. déedéet naa waxtaan ak yow na koy sama xarit nga bu ñu kenn dajale bu ñu eh nogay bu ma def loolu nogay bu nit nga parce que Serigne Touba wuy ma maman xam ne dama bëgg comprendre nga maman mii moo tax ma bëgg parce que lim la def barke Serigne naa ñu fi moom maak moom ñu waxtaan si yow comprendre nga waaw xoolal bul bul déglu kii moo bëgg dégg nga maman bëgg waaw léegi jubóo nañu ah. ma woo waaw kay waaw kay

léegi yow man suba incha naa ñëw waxtaan ak yow. looy toog waaw. Hello.